teg leen teg leen teg leen teg leen mbaxana mi Gora Sock fils de Balla le 14 août la incha allahu rabbi mbaxana bi nag le 21 novembre dañ ko commencé woon di xëccoo Iba Mar Diop ba arène nationale le 14 août kan moo yóbbu mbaxana bi. man doomu géejuwaay dama yóbbu mbaxana bi te dafa dafa dafa yaradi ko te naa ko yar le 14 août incha allah rabbi. mënoo maa jaxase ak sénégalais yi dama lay duma daan la. dama laa xiif seen 100% bi laay tas. kii tapet la morom muy forcé nii mais le 14 août xam ne ba si góor a bay a ah, mbokk yi jameekee moo woote ànd ak jam production le 14 août fils de Balla ak Gora Sock waaye jameekee yamul foofu kéwél laay jël daal di koy boole ak jokkeel mbokk yi loolu yëpp nag ci seen affiche point com dong ngeen ko mën a amee yéen ñi nekk ci diaspora bi jameekee nee na 4 virgule 99 euros ngeen ko mën a seetaanee waa Sénégal 2000 francs dong kon mbokk yi bés baa ngi noonu la 14 août arène nationale fils de Balla ak Gora Sock jam production ak sponsor leader bi tuuti chic loo ko wax loo ko wax léegi yaa dé yaa décroché combat ah yaa décroché combat na lu ne moo fekk moo defar Pape Bouba ba muy tëgg ay combat. soq maar la soq non soq kat. soq la wala la ko wen. soq maar mën na lu ne waxal bës mën na lu ne. non kooku sama frère na lu ne. Jalle ba xam na ci waaw vraiment. mais dañuy dox dox yu métti yow liggéey mooy dox la dox yu métti du fa. mais mais bëgg naa la mbër. Lamine maa lay de moom nee naa koy mën nga lu ne. <laughs> waaw gis nga ne gars yi affaire yi mooy loolu gaañ. mais mais mais dañu dégg sa combat ak soq dafa taxaw mais loolu teew ci bëccëg gis nañ la mais waxoo ci dara. non boobu déggaguma ko ah. man sànq bi ma ñëwee sama kër lañ may soog a xam nga sëru ménagère bi woo ma yaatal ma lu mel noonu. Mhm. waaw moolu ko ay xale lan xam mhm. waaw suñu liggéey lañ nekk ñoo lañ ko jël rek yaa ma a xam mhm. Mhm. sa combat ak Sokh fekk naa la sa kër après sa victoire ak ak ak ak nekkuréel euh, ma la sa combat ak nga ni ma noonu lan la sa manager def ak promoteur bi def ba convaincre la c'est xam nga li bi làmb moo toll foo xamante ne nii ñi ngay bëgg a bëreel du ñu bëri ak yow comprendre nga moo waral dañuy mujj obligé pour jël ko bëri ak moom mais lenn dong moo fi nekk ñu def fulaak fayda def li ñu war a def ñaan yàlla may ñu ndam. Mhm. incha allah waaw. soq jóge ci defet digganteem ak franc ñëw war a rectifié wu. Mhm. jël la conséquence combat bi ndax booba. loolu dara waaw loolu dara man soq bokkuñu ay catégorie bokkuñu maanaam yemuñu dara si làmb. waaw coow moo ñu boole nii rek mais xam nga. man ak moom du ñu du ma sax. doo moromam sox. barki sëñ Bamba du ma moromam. mais côté doole tamit est ce que amoo sikki sàkk parce que sox gis nañu moo la gën a diis. non mu ñëw jàppale jaare doole. volume ak doole du benn ñun dañuy liggéey te bu ñëwee taxaw na nga xam ne kii am na doole. waaw ah, mais soxlawuñu ay volume yooyu noonu. Mhm. lan moo tax nga ni doo moromam sox fan nga ko teg. ñi ma bëreel bërewut ak ñoom maa ko dàq bëre. maa ko ëpp sens si lépp si làmb yi te duñ si xam dara incha allah. mais yaakaaroon ne doole mën na def différence ak gën a diis. non loolu àgguñ ci loolu problème te buñ ci àggee yi nga xam ne lépp dëgg la incha allah. Hmm. waaye. loolu dama mbuuse man xamul ma ciy tekkati nee na moom man soq. moo ko mën moo ko mën kii ñun. Eh, dawuñ ci dara de. waaw combat boobu moom. maa ngi koy soog yëg fii indi baal la fii. maa ngi koy soog yëg. mu ñëw di def benn jàkkaarloo ne combat boobu suñu combat ah, boobu combat géejawaay la. dëgg la na waa géejawaay yëpp xam ni Marley moo am combat. doomu géejawaay mais ki mi bëreel xale bu yaru bi. ki mi bëreel waaw. gaynde bu fanaanoo mer la. non ban mer kii xam nga ni kii naataangoom kii ay tolof tolof rek. Mhm. mais naataangoom bu mu taxaw du yàgg ak yow. kii dafa rampe. kii ba muy bëre mbapat ñun lu ndaw lañ. kii dafa rampe ànd ak ay magam tarbiyu leen ba egg fii tey. làmbu ju rëy la lamb ju mag la te suñu combat la. mais soq dafa a fay bor bi combat géejawaay la. soq dafa bëgg a fay bor bi. kan kan lay fay soq dafa bëgg a fay bor bi waa Pikine. dina fay keneen waaye kii kenn du ko fay. du fayee fi. kii du fayee kon dafa jum. kii non jum na. mauvais choix la def. mauvais choix waroon na dem jëli keneen waaye kii fu mu laal baaxul. kii suñu produit la. Mhm. suñu produit la. wala Mara yow mën ngeen combat bi. non ñoom dañ ma xam moo tax ñu wax loolu. waaw suñu produit la comprendre nga. ñun géejawaay lañ dëkk ay doomu géejawaay lañu géejawaay bu kenn xew xewlee ñëppay génn ñëppay sot waaw yàlla baax na daal comme ñu ngi soog a ñëw nii te xam nga. waaw mooy loolu ban mois lañ wax combat bi moom la war a. non bi moom xamaguma dara fi mu toll nii may wax ak yow nii. joxee spécial Balla Gaye Boy Niang bëgg nga. waaw bien sûr bëgg nañ kay. buñ la waxee le 2 octobre ci combat Forza ak ak ak ak ak Franc bi. ñun bañu dara ay xale lañ. dañuy bëre foofu lay dugg Forza Franc wala. Forza Franc ah waaw ñu siy xool de combat yi neex la waaw yàlla baax na. Hmm. Hmm. kon bàyyi bàyyi nga dugg ci biir. jaajëf. rek. dama ne de Balla boo ñaa moo dekkiwaat rek. waaw ñu ñaanal ñoom ñaar ñëpp. mar yàlla may ko ndam may ko waaw ca kaw ca kanam rek géejewaay. ay fii seen loo waaw. grand bi jël na combat ah. waaw jël na combat waaw. booy grand bi ki jël dis na de. non ñoom ma nga naan ñu ne la. ñoom ñaar ñëpp samay grand lañ. ki mu jël dis na laa wax. non tamit xam nga. ki mu jël dis na. Eh, eh, non dis eh, na xoolal Matar Ndiaye di soxla Matar dama laa bëgg yow sama xarit nga. grand frère la yoroo sama xarit nga dama laa bëgg. ñoom ñaar ñëpp samay grand li ci war rek. li ci war dañ ko def. Ah. yàlla yàlla suturaay moo ñuy waaw ñoom ñaar daal ñoom ñaar ñu si biir géej. waaw dara nga ne ko waxi mag la. la yoon am nekk si moom xale la. kan nga ci yor soq nga yor. soq laa yor loolu kay janto laaj. loolu mooy géej gi amoon na ana soq ana soq. soq mi ngi fi ah, na. egsi na bu yàgg mu ñu fi jiitu man sax moom ah, ma jiitu. oui kon daa duggagul rek daa duggagul rek. waaw dañuy xaar ñu introduire ñu. ok. baax na bëgg ci yow. ah. non non non waxal fii fi ngay wax hmm? la. lan la. nga ni nga ni soq nga ni soq nga ni soq marle. géejewaay Pikine géejewaay dara ñun moom mooy li ma la wax rek ñun xaju géejewaay sax wala ginaar sax suy bëre moom géejewaay la ñuy faral. ah mais soq gaynde bu fanaanoo mer la. soq sama waay la ku ko bëgg laa. doy dellu parcelle incha allah. ku ko bëgg laa moom xam na ni sama waay la mais wax dëgg yàlla mbëru géejewaay moom ku muy dajal mbëru géejewaay laay faral wax yàlla bi muy bëreeg Franc damaa ñëw stade supporté ko def lépp te dama jóge voyage jóge si jóge foofu ménagère am bii xam na ni man damaa bëgg Sokh hmm. nëbbu ma ko ndax mais Sokh est-ce que ëppul kenn mënu ko ma wax la loolu nag tey benn mbër mënu ko loolu moom maa la ko wax si Marley benn mbër mënu ko kontaan ci yow waaw ñoo far leen teg leen teg leen teg leen teg leen mbaxana mi Gora Sock fils de Balla la incha allahu rabi mbaxana bi nag le 21 novembre dañ ko commencé woon di xëccoo Iba Mar Diop ba arène nationale le 14 août kan moo yóbbu mbaxana bi. man doomu dama yóbbu mbaxana te dafa dafa dafa yara di ko te naa ko yar le 14 août incha allah rabi. mënoo maa jaxaseeg sénégalais yi dama lay duma daan la. dama laa xiif seen 100% bi laay tas. kii tapet la morom muy forcé nii mais le 14 août la ñuy xam ne ba si góor a bay ah mbokk yi Jamaïcain moo woote ànd ak jam production le 14 août Fils de Balla ak Gora Sock waaye Jamaïcain yemul foofu kéwél laay jël daal di koy boole ak Jokkel mbokk yi loolu yëpp nag ci seen affiche point com dong ngeen ko mën a amee yéen ñi nekk ci diaspora bi Jamaïcain nee na 4 virgule 99 euros ngeen ko mën a seetaanee waa Sénégal 2000 francs dong kon mbokk yi bés baa ngi noonu le 14 août arène nationale Fils de Balla ak a Sock jam production ak sponsor leader bi tuuti chic